Sénégal la ñuy xeexal bu Sénégal di tàkk ñun ñëpp la ñuy parce que kii xam naa li mu mën man xam naa li ma mën damaa wan li mu mën ginnaaw moom mu wan li mu mën ginnaaw pour sénégalais yi te foofu lañu ñu toll tey damay ñaan bépp sénégalais man soxlawul mooy wax wax ju bari parce que waxoon naa lépp xëy na bi ma koy wax ni ma ko doon waxee ñu bari neexu woon mais waxoon naa lépp ba pare léegi nag fii ñu toll nii dafa toll ci ñu dégloonte loolu loolu laay ñaan Sénégal parce que benn combat la ñu am benn combat benn mbër la ñuy jàkkaarloo kii jàkkaarloowu la Ousmane Sonko Ousmane Sonko jàkkaarloowu la kii man Assane Diouf jàkkaarloowu maag moom Macky Sall rek la ñuy jàkkaarloo te ñiy jàkkaarloo moom mooy sénégalais yi mooy leeralal sénégalais yi nañu dem ci dialogue bële wala dem leen at ci ginnaaw ngeen déglu lan lañ doon wax. ci dialogue ak ci am bu may ñaan merci. alors que 2 millions de cartes nous le point avec les gens qui sont dans les autres départements du Sénégal parce que les 46 départements du Sénégal c'est jot nañu lot de carton rouge may remercier les Dakarois pour la réussite de cette opération ma gis jaaykatu guerrier. jaay nit 100 francs gerte ñu ñëw taxaw mu fa mu jox waaji ji gerte gi ba pare ne ma 100 francs bi am jënd naa ko carton bi pour Macky Sall jóge fi ma gis jaaykatu ndox yi handicapé yi ñi yalwaan ku teg potam di yalwaan ñu ñëw mu jël ci 100 francs ci yalwaan gi ne ma jaay ma benn carte parce que dama bëgg Macky Sall jóge fi

d'accord le troisième mandat tu auras trahi les Sénégalais tu auras trahi la constitution mais nag bu mu leen jaaxal Macky Sall moo njëkk a constitution bu Sénégal Macky Sall moo njëkk jalgati constitution bu Sénégal et comme ma laaj ma jox la ay finde yu bari bi ci njëkk moy étudiants yi nga xamné des Sénégalais du moins yu participer won ci concours FASTEF Cour suprême daal di jël décision ne nañu leen jël intégré leen moom Macky Sall mu ànd ak Serigne Mbaye Thiam ne moo lànk ndaare defu waaw kooku respecté wul suñu constitution alors que lui il devait être le gardien de la constitution kon tey jii moom Macky Sall lii muy def waru leen bett li mu nekk di def nii ci Sénégal warul bett kenn ci yéen mais bi ma doxantoo tey ci mbedd Ndakaar bi donc on me dira, ouais, ouais, ouais, mais pourquoi faut attroupement Non. Je leur ai dit, pas d'attroupement. La sécurité, ils étaient au nombre de 47 gardes du corps. Je leur ai dit, les pas Parce que, ay ils lañu ay ils ils vont te dire oui da ngay def parade ou da def attroupement

1 plus 1 égale 3 wala 1 plus 1 égale 1 il faut qu'on soit sérieux et Macky Sall est en train de tirer ce pays ci une médiocrité chacun d'entre nous a la lourde responsabilité de faire face aux dérives de Macky Sall li may wax rek dialogué ak dealers

commencé la gendarmerie ñeu dugg si biir siège F24 biir siège grand parti mais yéen ñi toog di réunion non génn leen immeuble ñu ne leen lutax ñu non non non c'est des ordres qu'on a reçus la gendarmerie sénégalaise l'armée sénégalaise la man ñi ma ci xam ñëpp ay honneur la xam buñ la ordre illégal ou exécuter c'est pourquoi j'ai demandé moi que être ñun ñoo la nous bëgg ñun am investir au Sénégal pour parler di wut ci Sénégal mais qui nous fal mu def ci c'est Macky Sall et Bamba lui a bien rappelé ça de l'autre côté je le félicite d'ailleurs pour deux ki nga xamné il a osé ak mom wax Macky Sall na lu mu ko jaral pour yàq réew mi non ñun jaral na ko jaral nañu ko pour jëflante ko ak moom pour defar réew maa ngi leen di bu baax jërëjëf